durant lu ngeen dund ban anot doon nga mën a fàttaliku nii lii dund ngeen ko yee ñaar mu marqué la. waaw loolu moom euh, xam naa ni ndax moom bu waxtaan sëñ Béthio li ko gën la mooy sëñ Saliou mun a waxtaan dara te waxtaan la ko si sëñ Saliou ndax moom foo ko fekk sëñ Saliou lay waxtaane li ma gën a marqué ci moom ci benn ci ci ci nu mel sëñ Saliou sëñ Saliou daa mës a daa mësa tëdd ci mbaaram ma comme lamp yi ni ma kiiyee nii mu tëdd ni ci mbaar mi lamp yi war jumaa ji tàmp ci bët bi ba mënta for bët seex bi ñëw siyaare ko mu ne ko waaw mun day sàllaaw lamp yi nekk ci war jumaa ji day sàllaaw mbaar mi damaa dàqal ci mbaar yi bu ma ñëwee dafa dallu day tàmpi sama bët yi ba euh, doo mën a dallu cheikh bi ne ko léegi mu fa léegi mu saafara mbàkke jël dara ji mu sumi woon li mu soloon mm. dara ji maroon dama ko fàtt mukk dama jugal ma jug man ma naan waaw bi fu mu def nii mu jël daraa ji lonk ko ci poto bi jël fenn fer bënd ko takk ko ngir sëñ mën a mën a dal loolu lu ma yéemoon la moom ba parce que man foofu àggu ma foon moom loolu lu ma marqué la ci moom ba mu ko defee sëñ ko ah ëpp naa def mu ne ko mbàkk yaa moom moom yëre yi mu ma sam keroog turki la ñibbee turki ak tubéy yu mag la ñibbee sëñ bi ne tekk gees ne ko ñi mu daal di ñëw mu ko ah ni nga ma ni nga ma defal nii de. maa ngi ñaan yàlla ci barke borom Tuubaa mbubb moo sol doo ko moo waroon a seex bi mbubb bu mu sol du ko solaat ba li mu fi bàyyi ci yére kenn xam mu toll ba bu muy tëdd mi ngi maye yére mbubb mu sol tey du ko solaat sëñ beeju moom rek la ko yàlla may déedéet sëñ bi sëñ bi wax ko loolu ñaan ko loolu waaw ndax jëf jure yooyu mu jëf loolu moom marqué la ak beneen sëñ Saliou moom képp lay jox loxo yor-yoru màggal amul kenn ku muy jox loxo. bu xëyee mu ngi ubbi kaamil alxuraan bi ndax sëñ Saliou yor-yor màggal jox ko loxo day mbuut mbuut dajee ne daaw daam lu ci ne waaye ñoom ñaar am na benn complicité bu ñu am boo xamante ni loolu mbirum sëñ Touba la bu xëyee fajar yor-yor gaa ñaa ngi bëf ci wetu sëñ Saliou bëgg ko jox loxo waaye sëñ bi moom am na fulla fullaay boo xamante bu téye kaamil bi moom doo ko jox loxo moom. bu ñëw ko sëñ Béthio gi ñëw mu tàddi mu daa teg kaamel bi daa di wérd jël kurus gi di wérd di wérd wérd ba mu yàgg bu cheikh bi ne toll mu yor ko loxo bi waaw loolu ma marqué na ma moom daan na ñëwit bunt bi xat cheikh bi bu ñëwee day jël kaala gi boobu kaala yi xonq yi la woon bu sànnee kaala gi sëñ bi sëñ saa yi dama sëñ Béthio ñëw na daa dem ba kaala gi day ñëw sànni ko ci miir bi muy demal nga ubbi sëñ Béthio loolu waaw waaw loolu waaw ay code la yoo xamante ni doo comprendre ak sëñ bi ak seex bi waaw waaw waaw seex bi ay suñu dernier moment moom daanaka mooy cant gi rek waaaw mooy moment bi rek dernier moment bi moom ku ne xam na ko waaw duñ ci mën a xuus waaye euh, waaw sant yàlla rek waaw moom dara ñaawul te jugu fi te njaboot gu lépp benn la. comme waxtaan wi yàgg na te kilifa nga fi ñuy wàccee kaddu yi rek balaa noo wàccee kaddu yi ñu laaj ndax cant gi moom yëngu gi nga xam ne Cheikh Béthio da ko daan yëngu ñu tudde ko wàllum cant day continuer ci kër gi wala dañ koy cante ci beneen facette. waaw ah, déet loolu fi dëkk cant sëñ Saliou sunu waajur moo ko daan defal sëñ Saliou ñun loolu lañ xam di ñun du kat ak sëñ Saliou lañ xam feccal ko ndax sëñ Saliou daan tëdd nii ci njawaan ji mu koy feccal nii taarix la loolu sëñ bi daan tëdd boobu Sooda Maama Fall moo daan sant ak El Hadj Cheikh Mbaye ñaari waykat la jamono muy Sooda Maama Fall mi ngi muy way ak El seex mbay bu ñu wayee sëñ Sall nii la tëdd Cheikh bi jug dukkat tool ko dukkat fecc loolu dafay yàgg déedéet programme boobu mu mënut soppeeku moom waaw sant sëñ saali moom déedéet ndax yàlla wax. xeetu jaamu yàlla yëpp ak cant ci féete kaw imilu wala dawru sukran ni ku sant naal julli wo nat asaka dem màkka xam lu ci yàlla wax ndax ngeen def ko ndax yàlla ngeen dugg àjjana ndax yàlla la wax de ndax yàlla nga dugg àjjana sant nag daane képp ku sant man yàlla dana dolli waaye daan ni lii may àjjana daane ko bare xam daa bare li may àjjana moo yor sa alal di di ko jox ay jaamu yàlla loolu day may ajana benn ñaara bi liy may ajana mooy fekk wàlliw bu bu mënta wax ci boppam waxal ko ko hmm. ni kii kenn toogoon nag moom ci kaw kii les war a liggéey des ko war a jox yàlla nee na loolu dana la jugal ajana hmm. mooy maam Cheikh Ibra moo wane sëñ Tuubaa ku wane si sëñ Saaliw loolu it day dugal ajana <laughs> benn kuddub ceeb hmm. benn kuddub ceeb boo jox nit tabax nga junni juma te suñu borom wax ci alxuraan ne képp ku ma tabaxal jumaa warul naa la sa kër Firdawsi moom mu ci joxe ay boli boli boli ba noppi tabax jumaa janatu ma wax kooku dafa liggéey waaw dafa œuvre moom sëñ Tuubaa ñaar la lii da amee ci may lii ma amee ko ci sañ-sañ sëñ Saalum nee na ñaare fëgg buntu ñu ne ko la mu ne borom sañ-sañ ako ko xamul dara ñooy fëgg buntu tey buntu bii boo jékki-jékki dégg ku naan këng këng këng nga mais kuy fëgg bunt bi ku mu wane kàccat mooy ku bokk ci famille bi baa xamul dara waaw yow dama waaw waaw waaw tàggatoo gi de mooy xanaa sant rek di ñaan ñu màggal ko ci jàmm fekk waat ko ay ay ati at sëñ mun daxaa yàgg fi te wér waaw ñëpp am jàmm senegal am jàmm waaw ndax jàmm ci la lépp xew Sénégal am jàmm te corona bi moom moom gën fay gën fay gën fay dem rek gën ñoo dimbali rek ba faw may ñu liggéey sëñ Tuubaa suñ ñu bay nga ñaan ko ñu tàllal loxo rek nga ñaan boo ko ñaanee moom. waaw war na sëñ Saaliw yaakaar naa ko yaakaar naa sax فتحت لي فتي خلق فالي فصار بدن فتن ومن به دخل فمن فلا يكون هاي بن من ابن سبيل mucc ak jar ñak yokk aju faj bi mu jub barkeb Serigne Saliou